démb ci talaata ji ndar yëngu woon na lool mu mel ni talaatay ndeer moo dekki woon ca dëkk maam Kumba Bang diggante nappkatu ger yi ak way takk der yi tàngoon na jër ba mel ni cin buy baax nappkatu ger yi nag li leen metti bañ wàcc ca taliba moo di ay weer a ngi nii mënuñoo dem nappi foofe ca Mauritanie loolee jural leen nag ak perte gu bëri ci ay millions ci suñuy koppar mbir moomu nag li ko waral moo di licence de pêche yi nga xamante ni moo war a tax ñu mën a am autorisation dem nappi ca waaxi Mauritanie moom lañ jotut boobu ba léegi yi mbir mi lee moo waral nag ba ñu baare tali bi taal ay pono jàmmaarloog ak ay takk der yi di leen sànni ay xeer ci loolu nag force de l'ordre yi daal di wàcc sur le terrain ak ay grenade lacrymogène di ko sànni ñi nga xamante ni ñoo di nappkat yi mbir moomu nag daal di jur ab intifata diggante nappkatu gendar yi ak way takku der yi affrontement bi nag jur na ay dégâts matériels yu bëri maanaam ay yàqute yu bëri yu ci mel ni agence Senelec siège OMVS yépp la manifestant yi lakk yi taal nañ leen fa ay gaañu gaañu yu metti nemmeeku nañ ko ci côté force de l'ordre yi ak ay arrestation yu bëri ci nappkatu gendar yi manifestant yu bëri tamit yoon teg na leen loxo ci fàttali nag bu yàggul dara ministre bi yor wàllum napp mi Alioune demoon na ca Ndar ca boobu boobule visite nag xamle woon na ci nii ci weerum janvier 2020 dinañ ci joxe licence de pêche yooyu waaye rek mu mel ni mesure boobu ba léegi kenn appliqué wu ko lii moo waral ba pêcheuru Guet Ndar yi dal di wàcc si tali bi jàmmaarloo woon ak force de l'ordre yi xanaa dañ leen di bàyyi rek ngeen seetaan image yi Ici, nous sommes en face, la cour d'appel de Saint-Louis. Les jeunes pêcheurs de Guindar ont réussi à franchir le bras du fleuve pour venir ici y brûler un véhicule immatriculé SL 8173B. Juste à côté, d'autres jeunes pêcheurs ont investi le pont Moussaf Malik Gaye. Ils veulent en découdre avec les forces de l'ordre le traverser et rejoindre le palais du gouverneur afin de lui réclamer leur licence de pêche. Les jeunes veulent se faire entendre pour récupérer les 400 licences de pêche déjà payées par leurs soins. Du côté des forces de l'ordre, une vingtaine de blessés a été notée à la tête, au visage et à la jambe. Il faut noter qu'un confrère de la Sainte TV a été arrêté puis relaxé, son téléphone saisi, puis remis. Les jeunes pêcheurs de Gendar ne démordent pas et réclament leur licence de pêche au président de la République. doonoon borom oto bi rek oto jàmbur bi yoonam nekk si. ah yow dëgg dëgër bopp fii laa la wax laal li sa bagage yi waaw laq nañu alalu jàmbur. ñi comme ay yamb barke rasulillah. non ñii police yi dañ leen mënal dara daw nañu.